linuriyahu min waaw terewul sax mettre nañ ko en garde waaw ah, parce que xam na ni day génne espace sidéral te mooy lu bokk ci fu mbindeef nekk ci yàlla bind ko lu bokkul ci ci ci ci barsàq la ca topp yonent bi franchir na ko def ko ci temps bu record ndax fii ak weer la rek bu nu ci duggee ci suñu xant fusil yi la nu taal safara bi mu takk ñu ni fusée ba départ na mooy dang dang dang dang dang dang dang dang ñu ni def na nangami fan ci weer yu doog a yegg nu pareti mu ñëw moom mu dépassé lu nga xamante ni nii lu ñuy bind espace bu ñuy bind moom dépassé na ko li wax l'espace bi dara dem fa mu dem gis ya mu gis yëpp def entretien ba mu def ak boromam dellu ci benn guddi moo tax suñ la nee tayyu tayyu secret la boo mën a jànge alquran ci lu matul fukki sëg dañuy dañuy wax dañuy dañuy af temps maanaam temps dootu lu ne lu temps xat-xat-xat mën nañ ko dugal ci biir waaw gis ba ci li ci sëñ Babacar radiallahu taala anhu di nettali ci li Seydi Cheikh Ahmed Tijani conversation yooyu mu daan tëral ak ñoom te du mat juróomi minute du mat juróomi seconde waaw ah. Seydi def ak ñoom ci lu matul cinq secondes a ah, nee damay jékki déggu gis ko rek mu ne ma almonia almonia sëñ Babacar nee na mën ko fii ay chey mun ma fi tariqa nee na mën ko almawtu fiha mu dem moo tax ko bari wax yaa bari wax ñooy wax farata tardé lu ñu parce que tant tant tant tardé lu leen ku toll ni Seydi Cheikh Ahmad nee na mu yegg si benn baat may wax sëñ Babacar nee man ko fii ay shay mun na fi tariqa nee na man ko al mawtu fiha mu dem ah bu doon nun nag daanu wax a wax a wax a wax te l'essentiel waxante nañ ko Cheikh def na ko luy sa yéene sëñ Babacar ni ko ci lu deme neen mun ko ci sunu tariqa mun ko dee ci rek fa la waxtaan rek ko yóbbu di ci bàyyi xel ataa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e moo njëkk a défier la waaye avec la grâce ci yàlla man du ko man e nag boobu bunt lañ fi dese mooy nanuy wut jàmm nanu koy liggéey nanu waaye nu xam ni yàlla nu ci mën a jàppale ñu am ko parce que ku yàlla defalul jàmm doo ko am wante itam est-ce que jàmm itam mooy ku xëy nuyoo ak sa mbokk yée wax ko mbaa jàmm tam ku ne tuddante mbaa njaboot gi ku ne yàlla sàmm est loolooy jàmm jàmm foofu la tàmbalee ñu ni jàmm boo koy liggéey lu biire la war njëkke te mooy li ñuy tudde tranquillité intérieure as sakina parce que ku sa biir dalul sa jikko biir dalul sa xalaatu biir dalul boo bëggee liggéeyal jàmm itam jàmm ja du sori te wax naa ko ay benn benn kilifa man leen jot na nag ngeen ëpp xel ñi ngeen jiite parce que koo jiite te ëppoo ko xel doo ko defal lu sotti man leen wutaloon na ay solution yu durable parce que problème dañ koy wutal solution bu gudd fan ay lu paj ñetti fan mu indi lu raw la nga doon paj wax naa ko jot na nag ngeen dimbale ëpp xel tuuti njaboot ji eh, mooy di leen tëralal lu gudd fan waaye eh, problème boo saafara ñetti fan bu géndiku waatee rek indi lu yees la nga tàmbale woon ñu ni kon na kuy liggéey jàmm da ngay ñaan yàlla may la nga am sorte de quiétude xam nga quiétude dana tax bu ayu biti amee sax fa ay wa war a yegg dëgg dëgg dëgg du fa yegg xam nga li ñuy wax jihaad diggante Charles Martel ak Salahuddin kii di def def jihad sedd ko yonent bi sallallahu alayhi wa kële di def croisade seddi ko Isa ibn Maryam waaye ku ci ne itam bëgg nga wone ci jihad ji kii sa kilifa lu xam nga ci biir jihad ji conflit armé bi Charles Martel bëgg na wane ni moom mu ngi tënku ci Aïssa ibn Mariama te lim ko sant ci jikko la ko teg Salahuddin itam di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def euh, jihad waaye itam bëgg na ci biir jihad gi ñu xam yonent bi lu jikko mais nanu ko wane mooy fu nu songante songante góor ci bëccëg bi bu guddee seen conseil yi ñooy daje waxtaan naka lañuy fexee ba conflit bi woyof ñi ci ga am gaañu gaañu fan lañuy jaar ba évacuer leen yóbbu leen ñu faj leen ñi ci faatu nan lañ leen di waajale ba yóbbu leen ku ne fa nga dëkk la sa diina maye ñu waajale ko ku faatu ñu defal la ko dañu koy tëral ba déggoo ci te bu ñu xëyatee ku ne yëkkati sa jaasi songo sa morom waaye fasuñu yéen a jikka jihaad ji jikko ju ñaaw amee ko waaw ah, fasuñu yéen a jihaad ji jikko ju ñaaw amee ko watax yonent bi sallallahu alayhi kenn melul ne moom parce que moom dafa wax ni jihaad eh, ci cadre légitime défense rek lañu ko mën a maanaam nga dem ba xam ne boo boo seetaanee sa bopp nu dal sa kaw nga jóg aar sa bopp aar sa njaboot aar ña nga bokkal moo tax gis nga bu ñu daan dem lu muy wax bu ngeen demee bu leen ma rayal màggat bu leen ma rayal liir bu leen ma rayal jigéen parce que lâcheté la ku jotewu ak yow dara yorul ngànnaay nga di ko songoo mu ni bu leen ma taalal tool bu leen ma reyal juru jàmbur te bu dee ñu ngeen di songool ci diine Isa ibnu Maryam bokk bu leen ma taalal église ah, pour wane ni kon moom li ko ci yàlla sant rek lay lay mëtale waaye lu bokkul ci jihaad ji du ko ci dugal dañu wax ni booy bëggee liggéeyal jàmm ñaanal yàlla njëkk la defal kéeti waaw dama ko seedee ci ñu fekk si yoon yenente bi di jaayanteeg moom ci suufu garab ga yàlla xam ni ñii moo leen mën a moo moo leen mën a confirmer seen ngëm wax ko yonente bi raqad radiallahu an il muminina id yubaayi'uunaka taxta shajara fa alima ma fi qulubi fa anzala sakinata alayhim wa ataabahum fatahan qariba waaw pour wan ko ni ko ñii la fekk si jaayanteeg yow ci suufu garab bi li ñu waxanteeg yow lu sincère la ci yow ko ndax man na ko natt ci sa seen biir xol ba xam ne liñ la indal dëgg la ci moom te ku ci ne nag xol xol bu nu bu nu bu dal la ëndaale ci ci ci jaayante bi muy jaayante ak yow waaw parce xam na ni ku ci ne quiétude mu ngi ci yow jàmm biir mu ngi ci yow ndax jënga Seydina Omar radiyallahu taala anhu dafa am délégation officielle bu ñëw di ko seetsi mu ñëw ñu ni fu mu nekk ñu ñu ni ñu ah nañ dem këram ñu dem këram ñu ni nekku fa ah ñu ni ah jaaroon na fi demoon ca marché ba ñu dem ca marché ba ñu ne ah jóge na fi am na fu mu jaar ñu koy topp di ko topp ba fekk ko mu lal benn xeer jël benn xeer jël kaalaam teg ko ci tëdd ci suufu garab di nelaw atax bi délégation bi ñëwee ba ñu gis ko ba mu jóg chefu délégation bi def ni ko lii ku ko mën dafa fekk nga nekk ci dëgg waaye bu doon ñu ngi lay wut di la sàkkal pexe bis bu ne mën ko daa xalaat leneen lu dul dem tëdd ci suufu garab jël xeer teg ci sa sa kaale di fa tëdd di waaw ba tax gis nga soo amee ngëmu biir ba mu jur ci yow sakina boobu menace biti du du du du la du la du la inquiété ah, du la inquiété ba tax ji nga Seydina Ali karamallahu wajhahu bi ñëwee déy ko ne ko am na ñuy formuler ay menaces ni daan la sàkkal pexe wax ko li Ibnu Mulchin wax ni moom balaa bay dana ko sàkkal pexe waaye bi ñëwee wax ko mu jóg ci lan la ki yàlla wax ni moo ma war a rey naka laa koy sàkkale pexe ah wax ni moo war a sàkkal pexe man naka laa koy sàkkal pexe parce que bi wóolute ba ca biir tax na du gëm ni gëmul ni menace extérieure dana am jeexital ci ba ba ba fajar ga muy waaja di dem julli da muy jàdd jëm ca jàkka ja Ibnu Mulhim dogale ko jël ci asijë dóor ko gaañ ko gaañ bu metti ndeysaan ñu yóbbu ko këram seen lu ñu pensé play bi mais geste bu mu njëkk a def mooy wane ni moom laaju ci moom jëkkal na ko mais bi mu dee ci naal yi bu mu fatto kan mu njëkk a sar xolle pour saluer saluer rey bi ñu rey si naal yi mooy ki daan yeetal waa këram ñuy nelaw ki daan yeetal yi ñuy nelaw moo njëkk a sarxole wax ni yaa darbatan min taqiyin ma araada biha illa li yamlika min dil arshi ridwana waaw ki doon yeetal waa këram moo njëkk a sarxel la ni waay waay ñu ngi gërëm dóor boobu faat ki ñu lëjël ki mel ne Seydina Ali te ki ko def bi mu koy def wët ngërëmal yàlla rek moo taxoon mu wut ko waaye yàlla neen taxoon mu def ko waaw yal na nu yàlla musal ci noon bu niru niru lu sapp yu wax l'ennemi intime te réew mi moo fees dell bari na ku la ku lay jege nga defe ni te boo teeyul lañuy lay indi lor ci sa biir moo ci moom lay jaare atam wolof léeb ku léeb bind naa ko ci texte sax waa ah, ne tubéy bu lekkee taat dara dooti ca des <laughs> ko wax nee na tubéy bu lekkee taat neen dootu ca des ñu ne ko lu tax mu ne daf ko jege ba mu ëpp waaw ah, daf ko jege ba mu ëpp waaw waaw <coughs> da ko jege ba mu ëpp moo tax rek e yooyu yëpp di ci bàyyi xel dafay baax waaw ah, que su amul rek daa jéem lu ne def lu ne ba paree rek nga yëg ni am na lu jaar ci suuf ci xase yëpp eh, Serigne Cheikh dafa am coow lu rëy lu am ci biir yi njabootam ñu ñëw song ko ni ko wax ci balaa mu yegg fu gënalul nit ñi walla fu gënul mu ni tekk ñu songaat ko ñaan ko pour mu àddu ci waxul dañ ko songaatee ñetteelu yoon bi bu ñu ñëwee dafa wax ni gis nga ay lu mu rëy rëy rëy rëy rëy bu ca bakkan raxul man naam buñ ca defee jéego bu dëggu yàlla war ca gudd mu ne waaye ay lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti ba ca bakkan wàlle mu ne amul solution waaw amul solution moo tax ku yóbbu rek et eh, nu ci bàyyi xel waaye bala noo sonn di am wut jàmm ci biti séq dëkkandoo bi séq ko que ñuy liggéeyee doon nañu naan yàlla may nu ko ci sunu biir nu bañ ayoog sunu bopp ci sunu biir ba noppi su defee sakina boobu nag quiétude boobu nag tabaarakallah mën nañu may eh, bu nu amee yéene di songu dara ci biti di ca wut jàmm itam yàlla mën nañu si defar kooku moo doonoon rek les premières observations eh, la ca des nag ñu ni jàmm du koy yenn jàmm ñu ni jàmm kenn mënu ko liggéeyal te de liggéeyaloo lu ñuy wax la culture de la paix te di dimbale nit ñi di leen yar di leen xamal di leen uppi ba fu ñu nar xalaate safaan xëy jàpp ni séq jàmm ci mbokk gi ci dëkkandoo yi ci ci ñi ñu yàlla booleel moo mooy ëpp doole parce que su ñuy wax culture de la paix c'est par opposition à la culture de la mort te mooy fitnaal fitnaalente yi xew boo dem ci adduna bi ci biir réew yi ñu ngay songoo waaw ndax kii man xeet sàngam la bokk te diw bokkul ci xeet sàngam waaw man diine sangam laa am to kooku dafa wuuteeg diine sangam waaw jigéen yooyu tey fitna yi am ci àdduna bi yëpp yooyu ñoo ko indi waaw waaye nag ñu ñu dimbale nit ñi ci ñu gëm gëm li ñuy wax la culture de la paix waaw wa ibaadu rahman alladina yamshuuna ala al-ardi hawnan fa ida xaatabahum aljahiluun qaalu salaama waaw qaalu salaama tabarakallah waa kër ah sang boobu salaamaaleykum taal taal taal ñu leen di ziyaara leen masaw waaw ah, bismillah ñëwal toogee ne sang xanaa ko xam ñaari famille yi diggante kaneen ak taaliyeen yi ñu nu demee ndax maam Cheikh El Hadj Omar radiyallahu taala anhu ba muy dem ci jihaad ji maam Samba Abdoulaye la wax ndax toog uuf njaboot gi dégg naa góor ga da koo jooy ah maam Samba Abdoulaye ndax bu sañoon kenn du ko fi bàyyi muy wute jihaad ci waaye mënu ko lool lañ ma sant waaye yow yaa fi def njaboot gi tabaarakallah e wëllëre boobu la yàlla sàmm ba bésu tey daa tax suñu toogee ci jataay mu mel ni ñu seddee ko maam Xaaja Abdul Hamid ngir yàlla xam taxawaayam ci diina ji ci réew mi ci tariqa cheikh ñu ñëwee seen nga xam ni ñooy sangi boppam yi ñëw fii di wàkke Cheikh El Omar ah, daan leen dalal sant leen delloo leen ci seen wàccuwaay xam naa bañ leen gêné rek moo tax kon dañu doon fa arrêté rek jox leen kàddu ñoom ñu yëggaleen ñu ñaanal ñu yeesal ñu tabaarakallah yeewu ko ñu dellu ci kër gi kon nag ñu ngi leen di dalal di leen ñaanal yàlla di sakku eh, su ko defee la culture de la paix di di ko tëral te di ko wax ci rajo yeeg télé yi di wax luy tax jàmm yomb barab yi ñuy jàngale nit ñeeg di leen ci ubbi itam ñu leen di xamal liy tax jàmm yomb waaw di ko wax fépp waaw itam sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu waaw bañ ko laajee mu firi aaya ba xaw ma wala xat wastal naa lahum al qawl lu ma ca teg al qawl alladi huwa al qawl waaw dañ ko ne mu firi aaya bi wala qad wastalna lahum al qawl laallahum yatadakkaruun ñu ni ko mu ne mu ne mu ne al qawl alladi huwa al qawl fa la yem waaw nee na wax wax mooy lu waxu sëñ Babacar nee na wax mooy lu waxu te nee na lu waxu nañu ko yóbbu ca rajo ba nañu ko yóbbu ca télé ba nañu ko yóbbu fépp waaye lu waxuwul bu ko kenn yóbbu ca rajo ba bu ko ko yenn yóbbu ca télé ba bu ko kenn yóbbu waaw mooy na Seydil Hadj Malick fi re woon taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan waaw ah, mu la yakun illa lil birri wa <laughs> parce que moom côté bu amul njëriñ bi du ko tudd waaw ah, côté bu amul njëriñ du ah, taawunu alal birri wa wala taawunu alal ismi wal udwan mu ne la yakun illa alal birri wa budul ci yiw ak mbaax rek mënu la nekk ah jàppalante budul ci yiw ak mbaax rek mënu nekk waaw su ko defee ku nu di ci dimbalante di ci yar nit ñi di ko waxtaane waaw di ko waxtaane waaw yonent bi itam yàlla façon yi mu mën a def yëpp pour mu éviter di dugg ci luy tax jullit yi dem ci xat-xat nekk ci xat-xat fexe na ba ba tëggal ko ko waaw parce que xam na ni ci jàmm ju yaatu rek ci la mën a émission mission waaye du ci beneen cadre e dëgg la nag culture de la boobu itam ñu ngi koy digle ñu ngi cay jéem ñi yàlla may boroom ubbeeku ci jëflante xeet yi ñu ngi koy def waaye du terewul itam problème yi ci àdduna bi ñu ngi ci àdduna bi waaw problème yi ci àdduna bi ñu ngi ci tax parce que nee nañu tey ci àdduna bi yii tax jàmm jafe yii la waaw ci adduna bi yii tax jàmm jafe nee nañ yii la waaw ce qu'on appelle la bombe foncière ce qu'on appelle le droit à la terre ce qu'on appelle le conflit le sentiment ethnique et la question de la supériorité raciale ce qu'on appelle l'étendard religieux et confessionnel, ce qu'on appelle les, gens, les ingérences géopolitiques. wax nañ ne adduna bi su dee jàmm xaw na fi jafe biñ ci gëna a ràññee muy muy koy woy sabab ci la bokk mooy ñàkk jàmm li ñuy wax problème mu suuf te foo dem ci àdduna bi problème boobu moo fi am e naa yéen ñi nekk Sénégal xam ngeen ci dara waaye toog bëccëg bu ngeen déggul ci télé bi wala ci rajo bi ñu wax wax gox sàngam nu nga génn ci biti ak nee nañu seen suuf bi dañ koo bëgg jël jox ko ay entreprise yu tubaab wala jox ko ay investisseurs yu mel noonu ñu ngi koy wax waaw waaw te suñu boroom mi bind moom suuf lan la wax abdullah waa si àlla wax te nekk bi ñu nekk ci kaw suuf lenn rek lañu ci tere laa tufsidul arda ba'da islaahiha kese defar nañ ko ba mu ñëw suuf bu leen ko yàq yàlla boobu charte rek la ci joxe waaye nee li ma li ma li ma xàll yaatu na waaye tey gis nga ko boo dem ci réew mi waxuma la Sénégal mais soo demee France soo demee États-Unis foo demoon la question foncière mu ngi nekk problème bu permanent ak li ñuy wax le droit à la terre defe naa conflit Palestine bi yëpp dimension politique yi ñu ko jox ak yi ñu cay wax yëpp mooy suuf bi ñu jox Israël Palestine ko moomoon lool rek la ah xëy na nag ñi dooleel nañ leen xëy na kattan du leen fa mën a jëlee parce que quoi qu'on dise euh, euh, conflit armé du régler question Palestine gis naa nag léeg-léeg yëngu-yëngu yi fay am léeg-léeg nu génne sànni xeer ay yooyu alerte la rek ah, parce que itam adduna bi question Palestine waxuñ ci ah, parce que jàppeetuñu ko ay problème mu revendication suufu ñii ñoo ko moom ñii moom na ko mais question géopolitique la te kooku tubaab yi itam gëwuma ne daañu sawar jàpp ci pour ñu régler ko yaakaaruma ko te jullit yi itam àgg nañ ci di worante ci seen biir di xeexante ci seen biir kattan guñu saafara problème bi amatuñ ko hmm? xale songo gi ci mujj am fan yee la ñu génne ñu rey liñ ci rey ci Palestine benn pays musulman rek nga dégg mu wax ci mu di la Turquie la Turquie rek nga dégg nu wane ci seen naqar wane ko et pourtant yeneen puissance nga fa yoo xam buñ ci waxoon rek affaire ba dootul demee noonu waaye kon nag ay question de géopolitique dafa posé ñoom itam problème bi duñ ci wax te man daf ma ci gàtt parce que tànk yi ci daara arabin teqoon séq koog Yasser Arafat nu dem ba jàpp ni jàmm ji teg nañ ci seen loxo la ko fel mu yàqu affaire ba di delluwaat di delluwaat ba fa mu tàmbale woon man man dama ci xaw am gàtt ci xawam am wante question bi mu ngi posé beneen bi ci des yi ñuy wax le sentiment ethnique et la question de la supériorité raciale adduna bi xeex bu am xeet sàngam moo ëpp sañ-sañ xeet sàngam ci ci ci tëralin yi wala ci ci dogal yi wala ci yoon yi ah gis nga fu mel ni Rwanda gis nga problème ethnique bi la fa indi yàq fa lu nga xamante ni ni ci lu matul quatre semaines loolu une guerre mondiale sax rayul lu ñu toll ci quatre semaines te dara kenn defu ko colon belgien ko def rek parce que xeet ku dem ba carte d'identité ñuy séddale di xam ni kii xeet sàngam la xam kii ci xeet sàngam la bokk loolu réew mun koy tërale bu ñu bëggee fitna leen te rek yàqu-yàqu la ah problème boobu mu ngi posé wu waaw waaw gis nga dañ ciy dem ci réew ñu ni état bi boo ko xoolee ñañuy fal ñëpp daanaka ci benn xeet rek lañuy bokk hmm? tey problème mu Syrie bi lu tax mu yegg ci ci ci ci yàqu-yàqu ah problème problème la mais problème éthique la te kooku bàyyu bàyyu Bachar bi Hafez al-Assad moo ko tëral bi ñu jëlee indépendance luy poste stratégique bu militaire mu bokk kooku cosaanoo ci ci askanam a ah, ñuy dem réew may soppiku di yàqu di yàqu di yàqu ba nit ñi fépp génn fépp génn mais mu xamal militaire yi ni leen bu bu nu daan bu daanoo yéen ñëpp du ngeen gis biti eh, ñoom itam non taxaw pour des raisons sampal seen bopp parce que xam nañ ni su su Assad daano mais seen askan yëpp mooy daanu ah boole nag aspect géopolitique bi waaw ah, gis nga problème yooyu mu ngi posé wu ci àdduna bi te yàlla nag moom problème yooyu yëpp posé wu ko inna akramakum indallahi atqakum rek la wax ah, ku ñuul ku weex loolu jubluwuma ci gënale góor ak jigéen jubluwuma ci gënale ah yooyu yëpp jubluwuma ci gënale dama ci jublu rek mooy xamante waaye nag ma xam leen ni leen kii ki gën ci yéen mooy ki wut bunt bu ma gën a jege rek waaw moom loolu la wax ah ñu posé ci barom problème l'étendard l'étendard religieux et confessionnel waaw tey bari na yokku yokku yaa am ci àdduna bi sama diine lii la ma may sama diine lii la ma may sama diine lii la laaj sama diine lii la laaj waaw boo demee ci réewu musulman yi gis nga problème bi ça reste ci su ma déggee tubaab yi di xas euh, pro di poser problème mu islamisme yi comme mel ni germe bi dafa nekkee ci côté l'islam man leen may yéen seetlu leen parce que ñii ñii wax ni dañu xeex ci turu lislaam li ñu rey ci jullit moo ëpp parce que loolu Cheikh Al Hadj Omar radiallahu taala anhu def na ko xam nga Cheikh Hadj Omar li mu rey ci ilimaan moo ëpp li mu rey ci buur li mu rey ci jullit moo ëpp li ci ku dul jullit mais lu tax mu def ko parce que xam na ni ña mu doon rey ci ilimaan ak euh, euh, euh, jullit ay mun ay naafeq la ñu te moom dafa daan wax ni ku dëgguwul bu nu ko bàyyi mu jege ku dëggu waaw dafa daan wax ku dëgguwul bu nu ko bàyyi mu jege ku dëggu parce que bu ko jegee gaañ ko te mooy li ma leen wax sànq ni leen tubéy bu lekkee taat dara dootu ca des parce que def ko jege bu mu ëpp waaw waaye bii ñu ko mujj defe nag àdduna bu tukki la mooy man nii laa gise sama diine ku ma ci fekk siwul nag naa ko nga moom la benn boroom xam-xam algérien waxoon Serigne Cheikh ci seen guerre ba en 1992 c'est entre front islamique du salut ak ak pouvoir ba loolu ko Cheikh xare dañ naan kii mooy sama noon nga xare moom leen ëmb juragul nga xotti biir ba génne doom de rey ko loolu ko ko mën delloo ci cadre ci at loolu mënul ne jihaad danga naan kii sama noon kay jël sa jaasi song ko boo ko mënee daan bu la mënee daan la waaye jigéen joo xam ni mu ngi ci këram nekk ci dëkk kaw yore këram yor njabootam dekk ci waañam nga fekk ko fa tër ko rendi xotti biir ba liir ba fa dekk nga rey ko parce que kooku amul tur loolu du extrémisme loolu loolu du folie loolu du extrémisme du folie yow kenn xamul lan la Euh, problème ah beneen bi ci des itam les ingérences géopolitiques hmm? alliance yi tax na kenn xamatul ndax dëgg lañu ñu war a doxal wala waruñu doxal tout ah itam est-ce que dañ leen koy reprocher ba mu jeex xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am xare bu am bu opposé ñu gëmul yàlla ak chrétien yi ñu duma chrétien yi yàlla waa ci aaye ni ko lu tax nga seetaan ci alif laam miim xulibati rum ni ko mais lu tax nga seetaan parce que mënu ko ku ku bokk ci ahlul kitaab yamul ak yow ku bokkul ci ahlul kitaab daf ko sermone xamal ko ni kon nag bu yu mel nii taxawate da nga xam ni li la booleeg Isa ibnu Mariam boole la Moussa boole wala ñi ci des eh alliance yi mu ngi fi waaw ah, léeg-léeg nga défendre point de vie bu nga xam ne xëy na boo ko delloo ci dëgg doo ko mën a lay waaye comme kii sa allié te bu la wàccee bu ëllëgee buñ lay song doo gis ku la taxaw nooy def mooy li daloon Seydina Hussein oh mooy li daloon Seydina Hussein Seydina Hussein mag ñëpp xam nañ ne moo amee dëgg mais kattan gu mu defee face noonam yi amu ko waaw ah, waaw gu mu defee face Yezid amu ko mag ñi ni ko boo ko songee du yaay mujj biti waaye ngor geek dareetu ngor geek mu ni rek moom itam du bàyyi boppam noonu eh ba nag li ci gën a métti mooy ñi ko digoon ni ko yëpp daañ ko porte assistance ba muy dem ci xare ba gisu ca kenn ah tax maara day ñu rey ko rey bu ñaaw te dañu ko rey ba taqale bopp ba yaram ah fa ñu denc bopp ba ak fa ñu denc yaram yi du benn waaw moo tax moom ci dul xabray ne la bokk borom ñaari bàmmeel yi la bokk waaw ñu rey ko rey bu ñaaw waaw waaye mooy la yàlla waxoon yonent bi sallallahu dañu jëm xare yonent bi waaj di waaj yàlla ni ko ah li ah, <laughs> lu tax mënu ko mooy sama coobare ne sama coobare ma ne ko ah nu nag man ko ah nga yebal fekk nga amul ku dul moom mu jaafaru sadiq ah ki nga amul ma mu jaafaru sadiq yenn te bi jox ko mu doon chef expédition bi ñu dem ñu rey ko bu ñaaw am jaafar mu xam ne bu demoon itam noonu lay demee rek. wala suñu borom il est cynique il est cynique danga koy defalal di ko doxal mbir maa tax man Serigne Cheikh dama ragal yàlla bu dee li muy teg góor ñi du ko teg nitan ñi ñu xam ni du góor bu sérieux moom rek ko ñemee wax mu ne yàlla bu dee li muy teg góor ñi du ko teg nitam ñi ñu xam ni du góor gu sérieux nee na balaa nekk góor gu sérieux lu mu teg jàmbur yi rek teg ko nitam yi waaye wax na dëgg jaafar ba mu demee ñu rey ko rey bu ñaawa ñaawa ñaawa yonent bi xam ne bu demoon itam noonu lay demee rey sans fiche parce que yii am yëpp du dara waru ko ci bind yonent yeeg wàcc diine yeeg dara waru ko ci coobareem la nag def na ko mais waru su ko defee yooyu nee nañu ci àdduna bi moo nekk base yu yëngu-yëngu yi am mais boo ko xoolee euh, neexul a weddi waaw neexula a weddi ñii askan moo tax mënuñu doxal jàmm ñi wàllu suuf moo tax mënuñu doxal jàmm ñi diine moo tax mënuñu doxal jàmm ñii tabaarakallah euh, bëgg a delloo ci seen moomee la tax mënuñu euh, am jàmm ah eh noonu la ah ñu génn nag ci cadre boobu nag ñëw ci cadre bu gën a local ma tuddee ko la paix au jour le jour waaw ah. <laughs> naka la ñuy fexe ba ci quartier bi dëkk entreprise kër ga bi nu bëggee liggéey jàmm mu jàppandal ñu wax ni gis nga dëkkandoo ki nga dëkkal ci quartier dëkk moom ci dëkk bi ñaar lañu mën a wax ni moom nga mën a sàmmonteeg moom jàmm am mooy li ñuy wax worma ak li ñuy wax sécurité dëkkandoo na ngeen fexe ba ku ne xam ni mën na compter ci moroomam sécurité am ku ne itam xam ne worma bi war a dox sa diggante moom am na jëg nga sécurité yi dëkkandoo may na la soo gisee ku fugg ci bunt kër te nga xam ni waa kër gi kenn nekku fa nga ñëw ni ko loo dox